bismillahi rahman rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppeek xarit yi salaamaaleykum fu way mën a féete ci àdduna bi tey doomi Sénégal ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal ak jàmm ci sa kanamu télévision Futur Média di nuyu bu baax a baax suñu président directeur général mboolem directeur ci biir kër gi noo ngi leen di nuyu di leen sargal ak itam ku yàlla dogal nga fiy xëy macha allah ñu ngi leen nuyu gannaaw équipe bu Pape Cheikh Diallo dafay dem ñun ñu ñëw moo tax ñu ngi leen di ziyaara bu baax a baax ñoom itam wéyal nuyoo bi ci wetu askan bi dem seeti suñu ay kilifa diine. ak suñu ay kilifa aada boole ci cofeel gu rëy macha allah di leen ziyaara di leen baalu ak waaye itam di leen ñaanal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla yàggal seen taxawaay def jàmm ci Sénégal nangu mbooleem ñaan boo xam ne rek yéen a ngi koy ñaan pour àdduna bi yal na ko suñu borom nangu. bu nu waxee nag Sénégal xam ngeen ne dañ ko bokk ak suñu mbokk chrétien yi. moo tax ñoom itam ñu ngi leen di beral nuyoo bu baax a baax di nuyu bu baax a baax église bi di leen ziyaara di ñaan itam ñoom itam ñu yàgg fii nekk ci jàmm ba tey ñu daal dee dem nag wéyal nuyoo bi dem ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci clinique yi hôpitaux yi ak dispensaires yi ñoo ngi taxaw nànk seen wet di leen ziyaara di leen massalu coono toogaayu hôpital boobee ñu ngi ñaan yàlla ci barke sang bu tedd bi yàlla yàlla gaaw wéral leen te bañ a tëral kenn am na itam ñu nekk ci seen wet di leen gunge ne dañ koy wax saa su ne ndéem nit buy dox soxlaam moo soxla ku ko gunge sàkkatuma ka nga xam ne dafa tëdd ci hôpital mënalul boppam dara kon boo kuy fay yàlla la dàq fay yàlla na yàlla fayal nu leen macha allah ñu bàyyi xel bu baax baax itam ñi nga xam ne ñoo nekk ci euh, prison yi ñi nga xam ne caabi daf leen féete gannaaw ñu ngee ñaan yàlla yàlla na nu gaaw mucc foofu jóge fa ci jàmm te lépp loo xam ne bu boobaa teg nañ ci loxo rek yàlla na ci sunu borom def barke te la leen fa yóbbu woon macha allah yàlla moytuloo leen ko bu baax a baax a baax daf cay am solo ànd woo gis nag demal maa ngi ñëw la ñu ngee ñaanal bu baax ñu ñu baaxoo woon di ànd ak ñoom te tey ñu nekk ci njëggal sunu borom njëggal googu yàlla na ko sunu borom yokk noonu la ñuy ñaanalee itam sunu papa sunu xarit sunu nijaay macha allah sunu model muy Serigne Sidi Lamine ñas macha allah. mu bàyyeekoo fi démb xol yëpp tooy ñun ñëpp sëngéem ñëpp jaaxle ñu ngee ñaan ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na tëraayam sedd guy guy guy guy te mu giseek maamam yu tedd yooyu macha allah giseek Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax bu nu fàttalikoo sii di Lamine fu nu ko waxee rek xel dafay daal di dem ci diine bu nu waxee sii di Lamine Niass xel dafay daal di dem ci jàppal ma jàpp maanaam ci social xel dafay daal di dem ci former ay xale ndax liim nañ ko dem dunu liim dunu liim xam ngeen ne moos ñu nekk ñu jaar ci loxo di Lamine bare nañu macha allah moo tax dañuy ñaan yàlla yàlla nañu ko yàlla fayal. Ah, ñun nag ñun ñi nga xam ne ñoo fi desandeegum ñu wéy ci li nga xam ne moom la bëggoon ñu wéy ci njàngale yi nga xam ne bàyyi na ko fi ndax saabu bu benn euh, macha allah nitu yàlla dëddoo saabu bu borom xam-xam dëddoo ah xel yi nag dañuy daal di dem ci li nga xam ne moom la doon def kon liñ ci mën a teg daal mooy wéyal li nga xam ne moom la tàmmali woon te ñu ngi ñaanal itam euh, groupe de presse am boobu yàlla na ci yàlla teg loxo ndax dana ci am solo lool lool lool lool euh, ñaanal yàlla woyafal mbir mi ci moom woyafal ko ci ay mbokkam ak xaritam ak i dëkkandoom ak i soppe yàlla yàlla teg ñépp loxo macha allah ñu ngi leen di wax bisimila leen ci seen émission wareef di leen wax bisimila ànd ci ak Ndoye Bane di wax Ndoye Bane ñu ngi lay dalal ak jàmm yow itam euh, wax dëgg yàlla xol neexul ne li daanu suñu kaw démb euh, doon tiis bu doy waar ci ñun ndeysaan ku baax jóge na fi ku bëgg mm. am xam-xam jóge na fi jaajëf Eva ñu ngi lay ziar bu baax a baax di ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp. ji eh, ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Basirou Abdoul Khadr di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér. Eh, di ziar taalibi yëpp di ziar waa Pire Sañoxoor. comme ni ma la ko waxee rek sunu gàmm gi eh, samedi la incha allah. ñu ci woo yëpp. di ziar Serigne Mansour Cissé xalifa ba ak Serigne Maodo Cissé njaboot yëpp ñu ngi leen di ziar bu baax moom parent Djibi Diagne ak ki nga xam ne moo di monsieur le maire Serigne Boubak Baye Badou Dieng ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax comme ni ko waxee rek ñuy jaal askanu Sénégal gépp di di ziar kilifa diine yëpp di jàll monde presse bi yëpp comme ni nga ko waxee rek Alaaji Sidi Lamine ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaare àjjana li fi bàyyi rek comme ni nga ko waxee yàlla na yàlla yàlla na ci yàlla teg eh, loxo eh, message bi fi bàyyi mooy nit ku baax nit dafa war a nangoo liggéey liggéey la fi bàyyi kon bokk na nit ñi jéem a jaamu yàlla te nangoo liggéey. solidarité partage jàppale ki mënta wax nga waxal ko. Mhm. macha allah mu mel ni suñu bàyyi Sidi lamin loolu lañu bàyyil moo tax suñu xel dafay dem bu baax a baax a baax ci sunu mbokki Saalum Saalum yi ñoo ngi leen di ziara di leen ñaanal ñoom itam yàlla defal leen jàmm. ñu ngi dugg biir Cambérène di nuyu waa Cambérène yëpp macha allah di ziara xalifa gi bu baax a baax a baax noonu la ñuy duggee Touba demee ko Ndiassane Ndiassane demee ko Tiwaawoon ñëw fii nag ci Ndakaaru dem seeti ëttu Thierno Seydou Nourou Tall yëpp ñu ngi leen di ziara bu baax a baax. di ziar soppe bi nga xam ne itam tey dafa tawat rek toog jàkkaarloog ñun di seetaan émission wareef àdduna moo ni mel demal maa ngi ñëw la moo tax ñu war a fexe saa su ne nee naa macha allah na ñuy rafetal diggante yi balaa daray am daf cay am solo lool lool booy sopp nit ki sopp ko ci ci ni ngeen bokkee àdduna nga bëgg ko mu bëgg la moo tax démb may wax ma ne ndekete koo sopp ndoy war nga gaaw yëgal ko ko mu xam ka daf ciy am solo diggante demal maa ngi ñëw lu ne da caaxaan nit da nga war a soo soppee nit ki soo gisee ne ko dama laa sopp soo demee sax moom it sopp na la su ko defee ngeen soppante nit ñi dañoo war a bëggante dëgg la waaw su nit ñi bëggantee rek coono yi wàcc waa coono yi wàññeeku waaw su nit ñi bëggantewul rek coono yi dañuy daal di yokk dëgg la donc ñun ay julit dañuy bëggante même su dul même ñu dul julit sax dañoo war a bëggante mais ay nit su leen yàlla wàccee ci ci ci ci ci ci àdduna bi mhm. wàccee leen boole leen benn réew wàcce leen boole leen ci benn quartier mhm. wàcce leen boole leen ci benn kër mhm. ñooñu mënuñu def lu bëggante suñu bëggantewul seenu dëkkandoo seen seenu dëkk day xat day xat lool ku ne di moytu sa morom kenn ku ne di ragal sa morom ku nekk dem ci tere a eh, dem ci sa morom mm-hmm. loolu day indi dëkk bu xat mm-hmm. waaw loolu day indi ñàkk bëggante day indi dëkk bu xat mm-hmm, kon boog yàlla nañ ci yàlla musal yàlla yàlla def tàppe xol yi bu ñu ñëpp ñu bëggante su ko defee jàmm daal di am ci dëkk itam may wax ma ni euh, gannaaw yàgg yàgg dañuy dem te ñoo defar lépp dès à présent doy baan ah, euh, defar suñu toogaay defar suñu comportement defar li nga xam ni mooy tax ñu ne jaar na fi zéro faute. gis nga ginnaaw bi nga juddoo fekkoo fi sa maami papa. sa maami papa. fekkoo ko fi. est-ce que. <laughs> sa sa maami wax ji waaw. voilà sa soo moytuwul sax sa waajur wi jur sa papa fekkoo ko fi. dëgg la waaw xamal ni kon sa baay dina dem sorewu la waaw mbir mi sa baay dina dem li fi bàyyiwul sa maami papa bàyyi fi sa sa papa bàyyi sa yaay du la fi baax. dëgg. donc loolu nit ñi xam nañ ko te te nit ñi kenn ku ci nekk bi nga juddoo indaale woo dara. dëgg ba nga juddoo lan la jox la dañ laa lëmas. Mm-hmm. utali la ay yére soo faatoo it lay lëmas utal la yeneen yére yu la denc. Mm-hmm. loolu mooy àdduna. li loo fi liggéey fi nga koy bàyyi. <coughs> soo fi liggéeyul dara nga bàyyi nga bañ fee bàyyi dara mhm. waaye loo fi mënti liggéey ak lu mu bare bare bare bare mhm. fii nga koy bàyyi donc nit nit ak ay nitay garabam soo juddoo ay nita lay jël soo mhm. faatoo ay nita lay denc koo ni doo dara mu gis boppam mii nit doomu aadama du dara fi ngay juddoo ñuy ñuy ñuy ñuy nodd ci sa nopp bi di la juutal tur ak fan lay denc di kiyee ci di di la jullee ñaari rakka pour denc la mhm. diggante boobu gàtt na gàtt goo xam ne def fi lu ñaaw xaju fi dëgg la wax lu fi wax fi lu ñaaw xaju fi macha allah mhm. mbokki téléspectateurs yi mën ngeen a wootee ci 88 628 vingt 22 88 628 04 05 bu ko defee ñu àggali rek li nga xam ne moom la ñu sumboon muy waxtaan boo xam ne waxtaani àdduna la muy waxtaan boo xam ne bu nu waxee société xam ngeen ne néegu sëy da caa am pàcc mu rëy macha allah te nag nit la nga woyee sa bureau maanaam la nga yóbbu sa bureau moom nga commencé sa biir kër ñaari waay dencante ñu war a xoolante seen xol yi bëggante ñu war a xoolante nekk en phase ñu war a xoolante di yëkkatandoo di tegandoo ñu ne déedéet ñu daal dee dem ba ca kanam xoolante ku ci nekk yéene moromam dee xoolante ku ci nekk lu mu am ci lu bon jël ko teg ko moromam ñu dem sax ba jamono yii ñu nekk mbokk yi. Hmm. nee naa damay bañ di wax ne dafa xew. parce que bu nu waxee dafa xew ñun lu rafet la ñuy xaar mu xew bu nu waxee dafa xew dañuy wax loo xam ne bu ñu ko waxee nit ki dana ci jëlee njàngat bu mag jàngat bu mag dana ko ci jëlee lan moo xew ñu ne violence conjugale. jigéen ñee ngi jël jëkkër yi di dóor jëkkër yee ngi jël euh, soxna yi di rey soxna yi di jël ndox mu tàng di ko sotti seen ay borom kër ci kaw violence conjugale wax nañ ko ay phase la ay étape la ndax nit ki njëkkewul rek jël rek salaamaaleykum jël ndox mu tàng sotti la ko njëkkewul rek jël paaka jam la déedéet dafa am mbir yoo xam ne dafay nekk ci biir néeg bi ku ci nekk wax naa ko foog ne mën na koo muñ ndekkite mënu koo muñ am na fu mu ko làq ci xolam te nag xol jàmm rek a ci xaj leneen loo ci def rek di nga ko gis danga koy dund bu feeñul ci sa fee feeñ ci geste bi macha allah te mu mel ni ñaar yooyu danoo danoo sorewul dara dara dara nañ ko moytu mm-hmm. ndax mbir la moo xam ne itam bu ñu ko continuer ba ci wàllu koom-koom sax di nga gis ne boo dee subir violence conjugale euh, sa nekkin du baax doo produir boo demee liggéeyi doo nekk te nit ki dañ yàlla daf la sàq pour que ngay daan sa doole daf la sàq pour que ci société bi nga wane li gën a rafet ci yow bu ko defee ñi nga xam ne ñooy ndaw ñoo ñu jëriñu ci bu ñu demee nag ba loolu yëpp réer ñu ah est-ce que ay nit la nu mooy point d'interrogation bi nga xam ne dañ koy posé ki nga xam ne dafa toog jël ndox mu tàng baxal ko ba mu tàng def ci la mu àndal yépp prémédité ko jël mbir mi xool nit doomu aadama ni moom mu sañ ko dem sotti mbir mi ah kooku man bu dee Evatra ci reflexion bu gàtt dafay ne niteem réer na ko ne nit ñu ngi ko sopp ci élégance am mhm. ñu ngi ko sopp ci def lu baaxam ñu ngi ko sopp ci jëf-jëf ju rafet ba nga xam ne bu ko jëfee macha allah ku ko dégg wax wax ëskay waaye nga jëf-jëf joo xam ne ku ko dégg jël loxo taf ci gémmiñ yàlla nañ ci yàlla musal kon mbokk mbokk mi bu dee yaa ngi ñuy seetaan lii mooy thème bi violence conjugale ba tey nag mën na ñoo ànd ba tey eh, ñi nga xam ne dañu bëgg a jàll présenter seen jàll daf cay xaj ndax nee nañu waxtaan bu rafet waxtu boo ko yëkkatee rek lu ne mën na caa xaj macha allah ndoy baan ma lay waxaat bisimila bu baax jaajëf ko Eva ni ma li ñuy wax rek nañu nañu bëggante ay nit suñu bokkee ndey ak bàyyi bokk kër bokk ëtt sëy dañu war a bëggante suñu bëggee am jàmm mm-hmm. ndaxte soo ma yéenewul jàmm ah, mën na maa bañ am jàmm waaye doo am jàmm ku yéenewul nit ñi jàmm doo am jàmm leer na ah, waaw ku yéenewul nit ku yéene nit ñi safaan ba mm-hmm. ah lu safaan ba mën na la da bana dal mm-hmm. waaye soo moytuwul safaan ba dina la dal donc soo ay nit suñu nekkee ci kër bokk jëkk bokk jëkkër loola seen jëkkër yi bokk suñu nekk bokkee benn kër dañoo war a rafetal mën nañ laa tooñ sax nga day xam ne yow mi yow mii dañ laa tooñ hmm. nga moytu nit ku baax day moytu foofu la rafetaay gi nekk waaw gis nga dëkk jamono jii jamono yu moytu la xam ne kii du nitu jàmm nga koy moytu waaw kii daal du nitu jàmm danaa dégg léeg-léeg ku mel ni Evatra di wax bu ma defee benn ma def ko fukk bu ma waxee nangam ma wax ko lu gën a ñaaw dana xam ne maa ko gën a yaradiku waaw yooyu façon lan la voilà lu soo moytul su suñ jógee ci lay tooy ci loolu yëpp moom lay jógee maa ngi jóg ñaari audio démb ñaari femmes yu xuloo hmm. xam naa kenn ki jëkkër ji da doon da doon da doon labat xarit ba waaw affaire ya feeñ ñi ñuy sànnante tey track ci ay ci audio yi hmm. mais gis naa ni kañuy labat maanaam gelo gelo jëkkër ji moom moo amul classe amul maanaa coro mm-hmm. waaw ne nekk coro rek déjà nekkuloo ci posture bu baax voilà nga nga yokk ci bañ a am maanaa voilà c'est que tey jii moom moom jëkkër jaa ngi mi ngi koy labat ñu ngi lay labat waaw waaw mais soo commencé génnee la ngay séq ak sa kër te dara amagu te dara amagu te kenn takkagu nga koy def ay vocal di ko yónnee jabar waa ji donc su ko waaji di gisee su amee ful la du la takk parce que da ñaaw laa mañ mais Ndoye Bane damay damay dee wax ci xam xalaat bu gàtt may wax ma ni dafa am lu nit di def dootuñu wax ne nit bu normal nga. Mm-hmm. dafa am comportement bu nit di def. Euh, dootuñu wax ne kii wér na. Mhm. parce que ñaare dañuy dee xaar ñun ba nit ki tey euh, jël mbubb ya sànni ko tëdd ci suuf bërëngu. Mhm. ñu soog a wax ne kii dafa wérul. Mhm. mais nit a ngi jëf jëf joo xam ne ndoy baan. ku wér dëggantaan mënta jëf loolu. c'est pas possible keroog bi nga ma ko waxee ne mais ñi ci dox bari wuñu de. ah jëlal téléphone ñu réew ñi ëpp de. <laughs> réew de sore réew gi ci ëpp ñi ci ñi ci wérul bari. allo salaamaaleykum jël ñu jël ki ci ligne bi allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay ziar wax baax. ça va. allo Ban fan waaw. sa numéro laa soxla woon. waaw seen am miyaar dina la ko jox léegi ci sama numéro bi. sama numéro bi day dama ko war a tàmbalee ñu ngi koy ñu ngi koy nuyu bu baax. chiffre bu ne 10 moo tax démb damay waxtaan ak sama benn xarit. waaw. man nga ni chiffre bu ne dix mille nekkoon dinga nga riche. Uh-huh. ma ko billaay nit a mënul muñ rek waaye jamono boo nekkee ci jiixi jaaxa boo mayee sa bopp une heure de temps rek ci dal. Mm-hmm. une heure de temps. Mm-hmm. di nga gis ne lu mbir mi tar tar tar lu mu tiis tiis tiis dana am tuuti lu muy wàññeeku. ba nga jëm guddi. c'est vrai de maa ngi seetaan théâtre boobu xaw ma pot la xaw ma maa ngi yam ci. Mm-hmm. gis euh, xaw ma tàntaam la xaw ma yaayam. di ko yedd ni ko décision boo mënt jël. waaw ànd naa ci yow. waaye bala ngay jël décision. na nga xalaatal ndeysaan waaw wax boobu. automatiquement ma ne ñi ma toogal dégg ngeen femme ndaw si li wax na femme. Ah, waaw ci décision bi ndaw si jël. waaw mais du ni ko ànduma ci. dëgg la waaye dañu ko décision boo jël. xamal ne maa ngi sa maa sa ginnaaw mais bala nga koo jël na nga xalaat. bi nga ko waxee automatiquement ndaw si tikkee na taxaw na. Ah. xalaataat. dëgg xam ne ndaw si wax na ko dëgg. te décision bi muy jël gënulu ko. donc nit dina jël décision. nañ bàyyi di jël décision yow kese nga du wét rek. ci kaw sax soo meree. ndoy baax soo meree mu daal dee wax wax yu rëy. daal lu ñaaw. def lu ñaaw ñu dem xam ne sa nawle la. voilà mu daal am lu mu la ci téyel. Mhm. diw nañ ko lu ko naqadi tout de suite mu daal dee ñëw wax jabar ji nangam ak nangam il faut que ñu jàng di tënk suñu bopp di yar suñu bopp. ndoy baan c'est très important. ni teg ndeysaan wallaay. li ngay wax naan teg. teg ko woon la yoon. dafa am benn artiste boo xam ni. Mhm. xam naa su ma ko waxee gars dina leen jaaxal. ndeysaan ku ma neex la. ba tey wax ko gis lu la neex wax ko nee naa la àdduna daa gàtt ko sopp yëgal ko ko. Carlo li di Carlo di. Carlo di. seetlu nga Carlo soo ko gisee rek ci lu am fulla nga koy gis. waa wax ji néew lool. waaw te tey liggéey. Mm-hmm. noo gëm noo taxit noo ko gisee macha allah ay yëfam day dox. waaw nit ñu baax baax yaa ngi koy woo. mu fay fréquenté man dama woon école ak moom wala classe xoolal toujours ma posé question xoolal bariwul dara ak wax ju bari. Ah. mi ngi liggéey liggéeyam. nit ñu baax ñi ñu ngi koy woo. muy leen di fréquenté ñu koy jàppal ñuy jàppalante muy liggéey liggéeyam boolewul dara ki wax. wallaay dëgg la ndeysaan. gis nga loolu nag loolu nag loolu loolu force la boo xam ni nit ci boppam nit ku mënti doon da ko war a am jigéen bi sëy ci biir kër jëkkër ji sa jabar def la lu garaaw nga di tekk jëlal ki ci ligne bi asalaamaaleykum ko tekk moom itam salaamaaleykum allo allo na ngeen def waay ñoo ngi fi ça yow la kan man Ndar laay wote damay leb bi mhm, Ndar waaw ça va alhamdulilah ça va Eva laa soxla woon mhm. Tata Eva nu ngi lay dégg jàkkaarloog yow Tata Eva te mi ngi indi neex na torop te na sant yàmb alhamdulilah. parce que lu tax lu tax kii parents yi. du ñu sukkandiku si bu ñuy maye seen doom yi. Mhm. parce que balaa ngay maye sa doom da xam fu mu bokk ak si kii bi ak ak kii bu mu bokk ak yëpp allo. yow rek lay déglu dama la bëggu a dog benn yoon rek maa ngi lay déglu. waaw parce que ñu xale. ñun xamuñu dara. dëgg la ñu parent yi suñu ñu war a jàppale ci lépp. d'accord naa. ngeen dimbali ñu si parce que ñun bu ñuy dugg ñun duñu xam ci parce que léegi xale yi diglootuñu seen parents yi. loolu dëgg la. ñun ñun ñun ñun yéen rek yéenee suñu royukaay. ndeysaan. bu ñu nekkee bi di nga xam ñi xam tan si xamuñu lan la ñuy def. ndeysaan. yéen a ñuy dimbali. Mhm. ndax tey yow yaa ngi gën na ki nga xam ne yow xamoo ko. dëgg la. sa yaay su la waxee nga bañ. dëgg na nen ne. sa papa bu la waxee nga bañ. Mhm. ñuy ànd suñu moroom yi ñuy dugal parce que léegi dañu ne seytaane mais seytaane léegi nit la nit la comme day dox. <laughs> day dox di waxtaan ak nit ñi. Mhm. nga naan seytaane seytaane pe parce que nekk na yoo seytaane nit doomu la. Mhm. dëgg la moo tax léegi sëy yi daal ma yàlla jégal wante Sénégal sax lay wax. parce que Sénégal dañoo war dañoo war a booloo nekk benn ñu xam ne lañuy ñuy doxalee. Mhm. adduna bi adduna bi jeex na ba pare. dëgg na maam si di la ministre nag yàlla na ko yàlla xaare àjjana. amiin amiin waaye amiin. ci barke Seydina Muhammad rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan. maa ngi leen maa ngi ñaanal ñëpp nag. ñu ni tam ñu ngi lay ñaanal jàmm ci àdduna bi. amiin amiin. barke Seydina Muhammad rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. ndeysaan jërëjëf jërëjëf. doomu doomu ndar la wax jaay set macha allah. Mhm. buy wax xam-xam lay waxee. Mhm. ñu ngi koy ñaanal yàlla. mais yaa ngi doon wax naan dof yi bari wuñ ci de. booba yaa ngi wax ci karlu di. waaw nee nga tekkaayu karlu di moo la neex. non non c'est que. Euh, tey agir tey agir xam nga moom dong du fi rappeur. mais xoola rap xool ko rek xoola rappeur yi la sax moom musique moom yëpp lay def musique yëpp lay def. Mhm. mais soo xoolee moromam yi. ñoom ñoom ñooy rappeur yi defe naa. man xaw ma Casamance man daal kii xam ay Fata xam a Carlo di ñooñu laay xam. xaw waaw Fata man nag damaa branché wul moo tax. xaw ma ne yow moom Fada Fada Freddy waaw Fada kooku. ko Fada il gis nga ñooñu da nga leen di gis la ñuy def. Mhm. boolewul ñoo daaraa ngi wax Fada Freddy ak Ndongo Dieng Carlo ñoom ñoo bokk style. duñ wax te seen ñu ngi leen di xam sur le plan international et partout. dëgg la affaire de force tranquille la. Mhm. loolu nag ci nit la ji jeeg bi sëyeeg boroom kër geeg doom yaag ñëpp nit dañ lay def lu nit da ngay am maîtrise. dëgg la ñu lay sànni xeer nga di tekk mm. nga nekk ci biir kër gi ñu lay classe sa goro di la classe nga ni tekk sa njëkkër di la classe nga ni tekk jëkkër di la wut nga ni tekk sa wujj di la wut nga ni tekk société bi ñi lay wut nga ni tekk mais kon balay dara demal ci Kumba Gawlo na nga kuul karti waaw way boobu nga nga déglu ko nga na nga kuul voilà c'est ça su coo coo li bare na nga kuul ni tekk dëgg la soo nee tekk nag di nga gis solution su fekkee da nga leen fekk si ci seeni affaire mm-hmm. njombe ngay tot ngay ngay def gorante jaasi jamante sànnante paaka màttante gàjjante ay après nga rëcc nga rëcc ko nga dem hôpital tëdd fa wala ka nga doon xel dem hôpital coow li nu kur nga utal xas say doom utal xas sa jabar utal xas sa jëkkër utal xas sa famille sa yaay ñu naan doom ja ndey ja bàyyi ba nangam ku nekk commencé ñu lay génne di la sullil ay mbóot yoo xam ne bu ma la doon laaj Euh, naka la ñuy def ba lu ni mel jóge fi parce que kat ñun saabu ñu xëyee ñu gis ñu titrel ñu ko ci benn journal mhm. wax ne diw rey na jabaram mhm. diw rey na jëkkëram mhm. waxtaan li suñu soppee bi wax keroog nee na waxtaankat yi ñu ngee waxtaan waaraatekat yi ñu ngee waaraate et depuis tant ñu dem nag léegi ba sénégalais ñun ñu ñeme affaire u dee du sax euh, waxuma affaire u dee ne yàllaay reyee mais jël nit ki jeexal fanam ñun ñu dem ba sañ ko lan moo xew suñu réew c'est parce que man su ma waxatee ñu nu dof ba waxaate na mais ñi koy def dara da leen ci dul fekk moo tax nit ñi di ko commencé continuer di def. maanaam ñàkkum sanction mi ngi ci. waaw dafay encourager leneen. waaw parce que tey jii da ngay gis nit ku nit ku jël ndox mu tàng këpp ko nit. waaw un an après wala six mois après nga gis ko muy doxoon ci dëgg wala sax kenn du ko tëj. waaw waaw mais loolu pour lan la. Mm-hmm. mais su fekkoon tey jii kat sottiwaate ndox mu tàng. Mm-hmm. tàngal nañ ndox sotti ko ko. Mm-hmm. ñëpp di gis société bi ñëpp di gis ne ah defoon lii kat. def nañ ko lii. Mm. kenn dootu ko des mais da da ngay da ngay rey sama papa quelque temps après ma gis la ngay taxawal da ngay da nga may sotti ndox mu tàng après quelque temps après ma gis la ngay taxawal man may am sama pro sama ay cicatrices yow nga nga sa yaram di nes na si pour lan. nga romb ma agressé ma jam ma paaka agressé ma nangu sama yëf après quelque temps après ma gis la dajawaat ak yow ci circulation bi mhm. mais loolu mhm. loolu du régler fajul dara mhm. mais suñu tey ji ko nit ki lu mu la def soo ko munta baal ñu def ko ko kon léegi nit ñi yaw maanaam ñu daanal ay sanctions voilà ma maa ngi dégg tam ci suñu mbokki jigéen yi nga xam ne ñoom ci kuréel yi mag yi lañu bokk di jàppale jigéen ñuy wax ne nanu moytu ñu ngi ñoom ñu ngi waxtaan ci violence basée sur le genre tam mhm. euh, ñuy wax nañu moytu pattaaral yi ñu dugal ci biir kër yi. Mhm. nit ki di def nga ne patt nit ki di def ñu ne nanu ko suturaal. Mhm. jëf ju rëy am ci biir kër gi ñu ne lii duñ ko pencoo ndax euh, waxi famille la. loolu tam est-ce que amul yu mu yàq ne am na jigéen yoo xam ne ndoy baat. Euh, jëkkër dafa dem sax ba da leen di jox bijou bu ñu jugee ci xew. mu nangu bijou yi mhm. xam nga loolu yaa ngi violenté nit ki mhm. dem nañu ba bu ñu génnee ni ko mami li ngeen waxee keroog soo ñëwee nit ki di la wisit di la seetaat mhm. xam nga loolu tam problème la nga dem ba yow nit ki nga war a tëddal ci benn lal nga nekk ak moom ci jàmm boo tëddee wax yi ñaaw yi daal dee jib te nag bu nu waxee ne jëkkër rek a ko def jabar mais jabar itam wax dëgg yàlla malheureusement daf koy def jëkkër te yooyu du loo xam ne sopp nañ ko ci liggéey c'est loolu ki nga ko séq rek yow yaa ko nangu waaw góor gu nangu sa jëkk ngay tëdd bu guddi sa jëkkër sa jabar di la xas. waaw dëkk ci di laxas nga bàyyi ko ci. yow yaa ko nangu. bu ëllëgee mën na engendrer leen c'est que fekkee sa ni nga mel rek ni nga mel la sa ni naan lu bukki su yabee gaynde ca doxin bala waaw sa jabar lu mu nekk sa jabar sa jabar waru laa yab. dëgg. waru laa yab dala war a respecté ruus la jox la cër mu ngeen wéet ka ngeen nekk ci biir nit ñi te loolu nag nit ki euh, fulla ak fayda boroom li ko woykat bi waxee mhm. yow ci boppam yaa koy liggéey mhm. lu la lu la rusee mhm. lu la respecté mais su fekkee da ngay def yëfi ñàkk fayda def yëfi ñàkk fulla kenn du la rus kenn du la respecté beneen bi mooy jigéen ñi am na ci ñoo xam ne comme ni ko moom mi waxee da ngay jóge fële sa jaaw sa sa borom kër di lay wisit ak di la xool ndax da ngaa demoon ci beneen góor dëgg la c'est parce que mu tëbuñu tëb def la ko ah suñu xoolee ba xool ba ci biir ñàkkul nii am na loo mus a def loo xam ni sa jëkkër amatul ci yow benn benn ko benn confiance ba tax mu lay visite mais ba mu la takkee ba ni nga toogee ngeen say vingt ans musul musoo def benn yëf yi ñàkk fayda musoo def ci dara dara lu louche musulaa jàpp ci dara dara sa jëkkër du la def loolu. tegal loxo ci li nga fi nga àgg nga daal di dalal ki ci ligne bi ne ko salaamaaleykum. waaleykum salaam. mbokk mi bisimilah. maaleykum sant yàlla bu baax a baax. waaw grand bi laa soxla woon Ndoye Bane. waaw na ngeen grand Ndoye naka mi. maa ngi lay ziar bu baax. ça va yàlla man Abdoulaye Diouf laa tudd quoi maa ngi wootee fële Kaolack dama am benn frère bu réer depuis keroog dimanche quoi bëggoon nga si sa émission nga waxal ma ko sama doom baay la quoi tey laay soog a yëg nouvelle boobu quoi. waaw waxal kay ñëpp dégg rek nu mu tudd. waaw moom kii la tudd Pape Diouf. waaw. Pape Diouf mu ngi jóge woon fële Casamance doon ñëw kii quoi. ñaata at la am doon ñëw croisement kër kër kii croisement ji jaxaaw. ñaata at la am. mu ngi am fukki at 15 ans kooku ma mag la de. xanaa amul téléphone waaw yoruloon téléphone en même ko benn numéro téléphone parce que village la juddoo fa la yaroo fa la màggee pratiquement moom grand frère am ñoo àndoon. Hmm. laaj ko ndax dégg na wolof. dégg na wolof. waaw dégg na wolof mais pas si pas tellement quoi séeréer la gën a dégg ko wolof. ana grand frère am bi mu àndaloon. grand frère bi àndaloon moom actuellement mu ngi Dakar foofu noonu di ko wër quoi. ñoom ñoom ñoo àndoon dañoo réeroo. non non waaw dañoo dafa ànd bañ jéggi bag bi bu ñu jéggee bag bi benn apprenti ne ko garaawal man dinaa la mën a yóbbul booy bi amul problème yow léegi mën nga ñibbi moom dina ko yóbbu jël numéro apprenti mais numéro bi ko apprenti bi jox moom par la suite la xam ne numéro bi baaxul parce que da ciy woote après numéro bi mujjul jàll. waaw ah, mais ah, ngeen koy yóbbu police déjà. nee na numéro bi baaxul. waaw mais du ñàkk bu demee police. waaw ah, kon euh, baax na incha allah na joxe moom na joxe numéro boo xam ne ku gis xale bi mën na ko ko mën na ko woo. waaw mais dinaa doy man est-ce naa am sa numéro après ma woo la. pour rajo bi suba gars yi mu faram naa ne fa lay information bi di gën a jàllee sama numéro bi. 73 69. Aminata Tall dama a woote. macha allah man de di nga ma bàyyi. fu mu ne nii daal laay xaar benn. coup de kan ngay xaar coup kan ngay xaar. non sa benn xarit rek. coup de am kese kese kese daal. ngay xaar mooy wax. mais xaaruloo beneen. non non non. mbaa du aala ak tee. yal na la woo bokk macha allah. mbaa ma may ko wax woo ma woo maay woo ma woo ma woo maay. <laughs> kii de Ndoye Bane la euh, Ndoye Bane ñu ngi ci waxtaan wu am solo macha allah. Euh, xam nga jëf ji nga def nii rek def ko ci biir kër rek dana faj lu bare. waaw damay dee wax ma ni nit ñi xuloo yi ñun ñoo koy guddal rek yóbbu ko foo xam ne mënoon na faa bañ a àgg. Mhm. pourtant jëf ju ndaw rek jeexal na xuloo. macha allah mais mais am na mais nag am na ci góor ñoo xam ne ah. ka nga xulool mu dem ca bureau ba nga yóndee message yu bon yi yu ñaaw yi yu doy waar yi lan moo la tere yóndee ko message yu ut jàmm ne ko est-ce que duñu waxtaan ñu teg jàmm c'est que góor ñi góor ñi moom góor ñi moom dafa góor ñoo xam ne mhm. c'est que gis nga sooy takk jabar na nga ko bëgg quoi sentir ko bëgg ko nga takk ko mhm. et yi nañuy bàyyi gars yi di takk ki ñu bëgg waaw ah. sentir ko bëgg ko mais su fekkee sa yaay la nopp sama yaay moo la nopp takk la sama papa nopp takk la pour man ma nopp la di difficile pour ma nopp la ah. après su ma demee ba am wërsëg bëgg a takk ñaare damay dem takki ki ma nopp yow sama yaay la nopp mais man noppuma la. mais man ka may wuti dama demee ba mu mën ka ma nopp laay takki ah. benn question. <laughs> waaw euh, ndax mun nañu mu mel ni sa invité lay seen mu nekk na la di ñëw xam naa miyaa dina ko am nañu nag gan gu mat gan macha allah. benn question. Mhm. Euh, toujours euh, sëy bi pour mu baax il faut mu am nopp nopp nopp nopp franchement. loolu nga gis waaw mais sa waay tey jii. moo tax moo tax da ngay da ngay faral gis nga yàlla mu yàlla musal nag ci ngay sëy koo nobul de. góor goo nobul wala jigéen goo nobul. loolu euh, ndoy ban ci sama gis-gis xamuloo ne nopp benn package la boo xam ni comportement wu nit ki mu baax nga am jëkkër ji ko mu baax nga am jëkkër mu man de nga am jëkkër mu attentionné. Mhm. forcément gis nga ci kaw yooyu yëpp pour man ci la nopp di la dabee. bien ku nekk ak na ngay nobee. d'accord ak ku nekk ak la ngay nopp ci nit mi dafa mel ni mi ngi wax ak man moom. nekk ak Mia xam na ni ku nekk ak. ngay nobee. kon li may ku nekk ak na ngay nobee cokkaas naa la ngay nob ci nit ki très bien di ñuy def mbokki téléspectateurs yi mooy damay dem directement seeti waa régie bu ko defee ñu ñëw ci benn page publicitaire ma soog leen a nag sama gan du jour Mia Ndour yow itam ñu ngi lay ne bonsoir <laughs> waa Tipo sama xol xet gu bees kii ci kër gi ti chambon sa yére chambon ba ci bi sa chambon di jaay sama turandoo moo fi jaar <laughs> ponkal bii mooy saabu tipo ñetti saabu la ci benn mooñ fii ci Sénégal lañ ko defaree day fóot mu set wecc te parfumé boo koy sangoo sa yaram day set te nooy ci kër gi léppay nes nesi te des na tipo antimicrobien la microbe bi yëpp lay rey daanaka daf ñuy aar di aar suñu njaboot <laughs> tipo le choix malin baax ci kër baax ci man <laughs> ngi remercier bu baax a baax euh, sponsor yi di remercier waa savon saf ànd ak euh, savon Tipo Euh, di remercier itam Kër Aram jàppale ak bépp sponsor boo xam ne mi ngi ci biir émission wareef ñu am nag gan gu mat gan la ma oustaz Makumba doon wax oustaz Pape Anne nee na ma boo amee benn soxla boo bëgg faj sañ nga koo jël rek moom portale ko def ko statut boo ko defee sa aajo yëpp faju ndax saa boo ko gisee mi ngi waxtaanee actualité rawatina nag violence conjugale bi nga xam ne dañ ciy dee waxtaan keroog damaa dégg nga ni ñu euh, ku sañ xool sëy xool ko xam ne yàllaa ko sàkk jaamu yàlla la nga jël sëy boobu tàqali ñaar ñiy ànd bu ko defee bu ëllëgee yaa xam lu la yàlla def yow la euh, oustaz maa ngi lay wax la ma bëgg nag caméra bi soog a dem ci moom oustaz euh, Modou Fall jërëjëf kontaan nañu ci ànd ak yow ñu ngi lay wax bisimilah. jërëjëf soxna Eva ginnaaw bi ma leen waxee asalaamaaleykum aleykum rahmatullahi taala wa barakaatuhu yëkkati kàddu njaal jaale ko mboolem. ku nekk ci réew mi wala itam bitim réew ki nu ñàkk ñun ñëpp tabaarakallaahu nga xam ne wax naa démb ni Sénégal ñàkk ko mais adduna moo ko ñàkk muy Sidi Lamine Niass ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala mu yeesal yërmandeem waaye itam mu yéegi ko ci barzaq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. ñu ngi koy jaale mbooleem koo xam ne yaa ngi ci réew mi wala nga nekk bitim réew mm-hmm. nuy itam waa émission wareef yëpp nuy waa TFM ñaan yàlla réew mi yàlla na yàlla def jàmm nuyu nag sama xarit sama soppe ndoy baan mhm. ziyaara ko bu baax mhm. nuyu Eva Tra mi nga xam ne moom ñëpp a ko sopp ndax kàddoom gu teey waaye itam kàddoom yu rafet mhm. nuyu réew mi yëpp ñaan yàlla réew mi daal yàlla na fi yàlla def jàmm amin Fall amin ñun itam dañuy kontaan lool ci jot la rawatina xam ne yaa ngi ndakaaru duñu nangu nga dem benn yoon suivre nañ leen ci gàmm gi ngeen dox ci wàll waam solo ñu ngee ñaan yàlla yàlla nu war conjugale ndoy baam loo koy wax. Mm, ah, li ma mooy mooy lu ko waral ak. nee nga daal bu demee ci diine gi yow nga xuus ci beneen côté bi. te yéen a bokk kàddu maa ngi moom dañoo bokk ay kàddu. waaye moom ci diini ji la koy jaar macha allah man ma ma ma jaar ko ci geneen wet gi rek moom xam nga moom ñi koy félicité bu baax a baax ndaxte euh, euh, sori kii néew na mhm. nit kuy wax ci média mhm. askan wi presque ñëpp bëggundoo la man seetlu naa ni daal nit ñi nit ñi sopp nañ la alhamdulilah waaw nit ñi su la nit ñi soppul woon it soo ñëwee ma piis la rek daal di far sama mais nit ñi sopp nañ la lool dëgg la car allah te loolu yàlla na yokk te xam-xam bi tamit ku la déglu rek giif su meree su la dégloo giif. su comme ni ko Pape am waxee sooy xuloo rek porcel bopp. porcel benn dana la tontul voilà léegi nag violence yi am ci kër yi jëkkër ak jabar yi xeex jabar ak jabar yi xeex maanaam kër gi amul jàmm biir néeg ba sax amul jàmm yow pour yow loolu lan moo koy waral. Euh, Ndoye li ma jàpp ni moo koy waral mooy dañu koy delloo ca cosaan la. ndax avant sëy di am dafa am lu yàlla conseillé woon góor. conseillé ko jigéen. bi ñu bàyyee nag ñun li ñu yàlla conseil ci la problème yi ñëw. li ñu conseil ok xam nga ndóoy dañ la ne oto bi balaa nga koo dawal fexeel ba am permis mhm. boo risqué dawal oto bi te amul amoo permis mhm. buñ la jàppee dañ lay fourrière. waaw kon problème yi la dal yépp. Mhm. dafa am loo bàyyi mooy permis bi nga amul. Ah. problème yi nu am ñun ci sëy yi dafa am lu ñu bàyyi. li ñu bàyyi mooy conseil yi ñu yàlla dénkoon. moom la ñu bàyyi xam nga ndóoy góor ak jigéen avant ñuy takkante. waaw yàlla dafa woo ko góor ki ba mu ñëw Eva. Mm-hmm. conseil ko woo ko jigéen ki ba mu ñëw conseil ko. yàlla daf ni wa min ayatihi an xalaxalakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma mm-hmm. yàlla daf ni góor li ma lay dénk ci ndaw si ñu la may mm-hmm. muy fexeel ba yërëm ko daat ni jigéenkaay kaay mu ñëw mu ne ko li ma lay dénk ci sa jëkkër ji mooy fexeel ba sopp ko ndoy baan yërmande ak cofeel fu nu daje jaama fay am mhm. yàlla jël yërmande jox góor jël cofeel jox jigéen mu jeex macha allah yàlla daf ni jigéen li ma lay dénk mooy fexeel ba sopp ndaw si fexeel ba sopp ko góor ki bëgg ko fa bëgg yam looloo waral nga dégg olof naan jigéen bu la bëggee sëyal la pourtant yàllaa ko njëkk a wax de yàllaa njëkk a wax ni na ku jigéen ki sopp ku góor ki yërëm mhm. ndoy jigéen bu la soppee du la teglu lu la naqari jigéen bu la soppee ndoy boo ko joxoon soom bi ne ko moom la ñuy añee une semaine mm. mu lekk ko <laughs> waaye loolu amatul de ci yàlla fu cofeel la sama kër cofee la manqué mm-hmm. ndoy baan di nga gis jigéen di sëy ci kër waaw ñépp naan lu tee mu tas sëyam bi jëkkër jaa ngi dóor guddeeg bëccëg saaga guddeeg bëccëg oh, lii moom dong nga ko man mais daa bëgg ah, ndoy ban bëgg ga yàlla waxoon démb ba léegi ku ci topp fu mu ne nga toog fu mu ne nga toog da ngay toog waaw mais ñoom ndaw soosu di bëgg ah. suñ ko takkalee wujj mooy indi problème bi maa ngi ñëw uh-huh. maanaam dama lay wax conseil yi yàlla joxoon nit ñi ba pare bi nu ko bàyyee nag conséquences yi leen dal yàlla daf ni jigéen soppal hmm. ne góor yërëmal hmm, hmm. léegi nag ñoom ñaar bi ñu demee ba ci biir nag ku ci nekk li la yàlla santoon da nga kaa teggi teg ne le jigéen cofeelam mm-hmm. mi ngi am ci bu amagul wujj en général mën naa sopp ah. mën nay fay facture mën na lay dimbali ci njàng mi waaye looy wax ba annoncé ko ni may nañ ma deuxième femme mm. <laughs> guerre mondiale mu ne la dangaa mën bay takk mm-hmm. man naa sama loxo bu biriket bi jeexee sax dana la xaar ba nga wàcc jënd biriket <laughs> wax na dëgg. kon bëgg boobu yàlla lalu ko woon. kon bëgg bi intérêt la. parce que mooy naa ànd ak yow. man kese man kese. bu keneen ñëwee ma soppiku. maanaam muñ boo xam ne da nga ko da nga ko dakkal muñ boo dafa waaw muñ boo xam ne dafa am àpp. maa ngi muñ ci kaw aw ma wujj. waaw. doy baan dañoo wax ni jigéen bu amagul wujj mënoo xam baa xam. Mm-hmm. nit boo àndul ak moom tukki mënoo xam jikkoom. koo séqalul alal mënoo xam gore na wala déet. ak ay dëgg waay. waaw mais ki mënta jënd briquet. est-ce que war naa takk deuxième femme. mais Sénégal dugal sa aawoo. waa nit wala koo xam ne amoo soo joxee. mais Ndoye Bane Ndoye ñooñu rek ñoo fi ne baa xam nga ni Sénégal rek ngay gis koo xam ne dañ koo coupé ndox. muy génn ci mbedd mi naan kaay leen sangoo sama kër. xam nga luy loolu mooy koo xam ne loxoom jotul gannaawam li muy engagé mënu ci dara. te àjjuma bu jot ñu ne moom lañ doon may soxna. ah maanaam dañ koo coupé ndox ba noppi mu naan nit ñi dikk leen sama kër. kaay leen sangoo sama kër sangu ah. ko fa dem xasaw dina la rey. mooy nag koo xam ne yow mënoo. waaw. ba pare di takk ñaari jabar. xam nga ndoy baan ñun dañoo war a dellu ci alquran parce que alquran bàyyiwul dara. rek noppalu. maa farratnaa fil kitaabi min shay'in yàlla nee na alquran ji lépp a ngi ci problème yi ngeen am ci sëy bi dellu leen ci alquran problème yi ngeen am ci biir kër yi dellu leen ci alquran yàlla jox nañu alquran ngir ñu ciy gindikoo mm-hmm. yàlla wax ni yow góor bu fekkee wóor na la ni mënoo yor ñeenti jabar waay waay yemal ci benn jabar. wax dëgg yàlla ñoom foo leen fekk ña nga naan yàlla nee na dañ koy bàkkoo ñeenti jabar ngay bàkk ay kat loolu rek lañu xam. mais yàlla may na ma ba ñeent. loolu rek mais ñeent yi koy mën. waaw. wa in xiftum allaa taadilu fa waaxidatan mën gi naka la. yàlla nee na bu fekkente ni bii mënoo. maanaam mënoo maandu surtout. Mm-hmm. mënoo leen a yemale benn. wóor na la ni li war sa digganteeg ñoom muy dëkkal leen dëkkoo leen seen lépp yow la war. Hmm. ndoy baan jigéen même bu nekkee milliardaire ñu may la ko yow ngay xëy di am journée mille francs yaa ko war yaa ko war a yor. jigéen du yor jëkkëram ci charia dépense góor la war dëkkuwaay góor la war yor góor la war. macha allah. yaa ngi réew moo xam ni booy wër. yaa ngi gaañ de. mais réew moo xam ni. ko mu àggali. mais moo xam ni booy wër jabar li ngay njëkk a laaj lu muy liggéey. am na ba bëgg lu yomb rek. bari na jigéen ñu yàlla dénkoon teraanga ñu daan dem Dubaay daan dem autriche daan dem Amérique topp nañu góor mu lekk leen ba mu jeex mu bàyyi ko fa seeti keneen. am na ñoo xam ne marque boobu la ñuy wër marque marque jigéen ñooñu. ak veuve yi kii commerçante la naa dugg ci moom lekk alalam bàyyi ko dugg ci keneen te genre yooyu dañuy am bayri jigéen. ah genre yooyu. genre yooyu. dañ koy ah. sangoo dañuy mel ni ku am bayri jigéen jigéen ju ñu dugg ci yow nax la ba nga jeexal ñu wan la gannaaw. Mhm. gis nga suuf suuf jàkk ak suufu marché. suufu marché suufu jàkka yëpp jeex na. naka la loolu bàyyi bi suñ ko defaree yëpp pare. suufu jàkka lay àndal ak suufu juma wala suufu marché. ñu sangoo ko jigéen ñi topp leen. léegi nag ndoy bàyyi waa nga seeti Makumba mu bindal la. mu bindal la Zuyina. Ah, waaw Zuyina li naas. voilà Zuyina li naas. léegi nag nga dem ci mais dañuy dañ lay gis dañ lay ciblé. c'est que ñoom suñu la gisee sa jëkkër gaañu bàyyi fi alal wala nga nekk commerçante am alal. dañ lay préparé dineen toog un an di la liggéey ba pare takk ko ba pare ñëw fexe xam xam sa fréquentation kar la ñëw songu la. mais mais oustaz Ndoye Bane daf ma bëgg a wax kon góor a ngi préparé jigéen mel ni ku jëm combat te demagul def déclaration. da moo gën a garaaw Modou bala Balla Gaye préparation bari léegi ci dëkk bi <laughs> Eva Tra Sénégal dañu toll ci réew moo xam ne Ndoye dafa jot. Mm-hmm. ñu defaraat jikko yi. Mm. macha allah te itam nañuy toog ba mu yàgg Ndoye Bane ñuy xalaat ni bisa ngi ñëw dañuy njëgënaayoo suñu loxo. nañ bisa ngi ñëw ndoyu baan da ngay wiit ci pax moo xam ne yàlla donga la fay fekk mm-hmm. mais loolu ñun bàyyi wuñ ko xel mm-hmm. réew moo xamante ne bii ndoyu ñun lu suñu intere nekkul suñu yoon nekku ci ñaare ba àdduna di baax mm-hmm. bu góor daan takk jabar da koy seet seetaat ko da koy seet seetaat ko parce que ndoyu soxna du caaxaan jàppal ni ki ngay takk moo lay jur yow mooy ñi ngay jur yow la kon fi ngay tànnee war nga koo xam dëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cité leen ñu ne ñeent mën nañ leen a tànn waaye bu dee mën nga tànnloo man muhammadu rasulullah yi dama la naan fasfar bi zaati diini booy tànn tànnal borom diine waaw lu bare da koy jomb yonent bi nee na boo takkee borom diine boo waxee mu dégg dëgg boo ko indiwaatee mu ñëw boo waxtaanee ak moom mu dellu si dana la mere sax jug julli ñaari ràkk mer ma giif mais jigéen ñi lu tax bëggante wuñu seen biir jigéen ñi waaw parce que parce que musugumaa gis maa ngi wax Eva musumaa gis ñaari góor yu gorante jaasi ndax jigéen xëppante ndox mu tàng ndax jigéen mais jigéen ñi toujours ñooy rayante ndax góor mais xam nga ndoy baan jigéen ñi bu fekkente ni bii dañoo nekk ci benn kër te yow góor gi leen yilif matoo matoo li nga war a doon juboo man dañoo rayante bari na kër yu yëngu góor gën a ca kër ga moo desee am responsabilité. loolu nga foog. waaw waaw parce que li ma mooy seytaane kër ga sax. parce que problème bi mooy ndoy baan uh-huh. bu fekkee ñaari jabar yi nga am yemale leen. boo fanaanee ci néeg aawo bi di yàq deru ñaareel bi boo demee ci néeg ñaareel bi di yàq deru aawo bi te jigéen loo ko wax da koy xoole moroom mi uh-huh. loo ko nëbb nëbb nëbb wax ko ci wujjam dana xëy doxee ko ci kër gi dana def benn geste buy wane ni am na luñ ko wax ci yow est waaw léegi nag loolu noonu bu fekkee góor ci wàllu boppam moom jël ay responsabilités xam ne ñaar ñiikat yaa leen yilif yaa leen takk. jigéen ñi jiitu ci kër yi it yaatal seen xol yi. dafa am benn waay bu ma doon waxtaan benn femme bu ma doon waxtaan ak mu ni ma man sama jëkkër liggéeyam demewul noonu. maay fay location maay joxe dépense maay def lépp maay njàng xale yëpp maa ngi koy gérer. takk na ñaareel nag bërki démb te ñaareel bi da ko nar indi ci biir kër gi su ko nar a ci biir kër gi naa téye sama loxo. Ah, mooy li ma la wax léegi mu gère waaw mooy li wax mu ne ma man ko léegi nag nooy def mun ma su ko mënee na ko bàyyi fa mu ne wala mu wuti li fa mu ne mënoo kuy li mam mam yi naan kuy yut muy të soo wàccoo dee mhm. te ku jigéen ki ku góor ki mënulu boppam dara mënul sax fay courant takk nam ñaareel te ndaw si nee na ma su ñaareel bi ñëwee ci biir kër gi ma téye ko téye sama loxo te toppatoo sama bopp ak sama njaboot mais xam nga Ndoye Bane senegal Eva li fi xew lu xew dafa dafa dafa dafa dafa ñaaw mu ci réew mi. mu di violence bi. ah, ah na ñaaw ah wax ci de. ñaari wujj yuy sottante ndox mu tàng di reyante. wax ci ca kaw waaw. di xeex ngir lan guur. ku ci ne amatoo jàmm bis bu ne yaa ngi seeti say mbokk ñuy wëri sëriñ léegi wujje comme combat. ah Moro moom kay léegi ku ku tayal ku tayal ca bokk seen jëkkër promoteur eh, ba pare ba pare léegi ndooy xam nga lu ci gën a yéeme. lu ci gën a yéeme mooy buñ la mayee wujj. ah nit ñee la koy influencer. waaw dégguma la de. nit ñi jaxasekat yi. seytaane yi. waaw ñooy ñëw di la seet si li la dal de metti na muñal rek te yàlla tax kii de fayul naar bi xoromam. laay kenn yéenewul la ko. waaye nag lu metti yàgg na fi. maanaam mais xoolal mel ni lu bon la parce que léegi wujj dafa mel ni descente yu baax. ni ñu lay jaalee boo faatoon boo amee wujj noonu lañ lay noonu lañ la koy waxee. Oustaz Modou fii ku fi dikk boo waxee lenn Eva Tra da lay dee delloo ca gannaaw. wujj nga ni wujj lu muy niru. dese dese. ku ñu may wujj subhanallah boo amee wujj. mook nga deele léegi ci jamono bi ñoo yam ndax nit ñi lay xëy di seet si mm-hmm. li la dal de yéene wuñ la ko sa yaay njëkk ñëwaat say xarit bilaay góor ñii mm-hmm. daa xalaatul ba ngay ànd ak moom di tële rek dalaa wor dalaa wor xam nga ni kii fayul naar bi xoromam de waaye góoru léegi yi de ñoom ñëpp a yam mm-hmm. yow nag ñaari baat laay wax ak yow xam nga réew mi li fi xew buy ñëw dana am yum indaale teelal la jug nag wax nañ la ko jógal sa bopp. danaa la booleek Serigne Ndoye Baan. waaw boole la ak Serigne Pape Anne. waaw boole la ak Serigne Diw. ñu seen xalima du laa laal. ñoom Oustaz Mara Fall ñëpp nekk ci combat bi. est-ce que. te boo demee ci Serigne bi kër Ndoye xam nga loo koy wax. Ah. mooy dañ maa takkal wujju te sama jëkkër xam naa ne sax tayu ko parce que góor ñi léegi dañuy takk jabar sa aaw ah, naan tayoo ko. dem labati. takk ñu indi nga ciital def lépp sol say jees ne ñu ne tayu ko. oustaz oustaz Modou. ba pare di aaye ji. waaw waaw léegi de defal naa xam naa ni sax tayu ko. te jaawaloo yow kër yi. waaw oustaz. te xam ki nga takk yàgg wax ak moom whatsapp ak lépp. léegi oustaz da ngay te taxaw ma ñaanal la nga gudd nga noppi nga soog a àggali. ñu léegi tayu ko boobu noonu. ak du genre ma yokkal la ko ci. ndaw sa da koo liggéey. sëriñam a ko ko may mu mel kon yëf yi loolu dong la noonu lañ koy waxee. mais noonu lañ koy eh, eh, waxee. Eh, sëñ mën na laa may kat man su ma xëyoon sëñ Bas woo ma jox ma may ma ci taalibe yi kenn nga dafa damay bañ. damay jël di. mais xam nga Ndoye. oustaz bisimilah àggali après doo wuyu doo xam man ci lool <laughs> àggali. mais xam nga xam nga ñun méthode boobu la ñu jël. jàpp nañ ni ku takk ñaareel rek. dañ laa liggéey. dañoo jàpp ni sanction la aussi. ba pare léegi da ngay gis koo xam ne yow Ndoye Bane sëy nag jëkkëram 40 ans di ànd ak xelam. Mhm. jigéen. ànd ak sa jëkkër 40 yow sa xel mës ta jaxasoo ñu takkal la wujju nga commencé dugg ci yoo xam ni. commencé dof carrément. mais ndaw si ñëw yëngal sa àdduna ngay dugg ci yoo xam ne du sa affaire. Ah, mais nag di yërndu. di lijjanti ay numéro WhatsApp. mais oustaz dafa am. di sol yoo xam ne daawoo ko sol. jigéen yoo xam ne laa xamee woon ci yiw ñu may la wujju léegi nga commencé sol tubéy. xam nga oustaz nag dafa am yoo xam ne neexul. ñëw fekk nga sëyeeg sa jëkkër 40 ans ah ba nga yow yaa ngi jëm comment màgget nga. sa jëkkër dem jël xale yu bees yi xew léegi gis nga xale yi Ndakaaru gis nga yu bees yi xale boo xam ne mën nga koo jur sa jëkkër ñëw takk mais xale yu bees yi ngay wax ndoy baan ñu nag dafa doy bees yi ngay wax ñu ci bari ay marque sinuwaale ah billaahi wal kitaab pièce détachée billaahi wal kitaab démontable nduy jabar dañ koy tànn nuñ koy tànne ok jigéen dañ koy tànn ndoy waaw te léegi sëyu intérêt yi dafa bari ci Sénégal macha allah gis ni yow am nga alal ñuy pousser jigéen pour nga takk ko bu ñëwee bëggula am ak yow doom mm-hmm. mais ndoy baan ku ñu may jëkkër mu xëy dem def planning xale bu ndaw bëggula la am ak yow doom mm-hmm. calculer na ni yor nga alal te alal ji mën na ci dund mm-hmm. yow nga xam ko ba pare di ko takk ah boobu daa bëgg rek déedéet du bëgg parce que yonent bi daf ne tànn leen ki ngeen di denc ndax boo bëggee am mbay mu rafet da ngay fekk ci suuf su nangu nga ji fa mhm. wal baladu tayyibu yaxruju nabatuhu bi izni rabbihi walladi xabusa laa yaxruju illaa nakida xam nga avant ngay ñëw maa ngi koy wax am na ci ñoo xam ne dañ leen a tànnal jabar waaw nga dem dëkk ba ñu jëlal sa doom bàjjen diw forcé la ko nga takk ko par boo ko nobul nag bu ko takk voilà non non c'est sa yaay ne la génn naa la àdduna ak yow àllaa xam nga nit ñi dañ koy dund génn naa ci yow àdduna ak àllaaxira danga maa bëgg a teg gàcce ñu may la ko par force mais xam nga ndoyu baan lu yàlla wax waaw wa in jahadaka ala an tushrika ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma dëggal yàlla nee na sa papa ak sa yaay bu ñu la bëggee poussé ci loo xam ne man yàlla gërëmuma ko bu leen ci topp voilà d'accord léegi nag soo nekkee dëkk ba moom da nga leen ci topp par force parce que lool lañ xam nga takk sa doon bàjjen boobu te noboo ko nga nekk étudiant di jàng ba nekk cadre tekki ci réew mi am dara am tuus du wecce foo jaar wuti koo nopp tegal tegal foofu loxo mais Ndoye mi ngi mel ni Miya Ndour xam naa may ma oustaz macha allah bal euh, leen nu ak asalaamaaleykum mbokk mi waaleykum salaam kilifa gi bisimilah ñu ngi lay dalal ci émission wareef waaw maa ngi lay nuyu ñu ñëpp mhm. émission sant yàlla jërëjëf voilà Eh, Eva yow laa soxla woon am sa numéro ah? maa ngi euh, bul bul quitté Miane Ndour dana la ko jox incha allah. voilà merci c'est vraiment important. merci beaucoup mhm. mais xam nga Ndoye Bane bu fekkente ni bi dañu nekk ci réew moo xam ne léegi dara naturel latul wala boog li naturel bareetul. poose yeeg yooyu. li nekk naturel bareetul de. parce que léegi ndoy baan da nga gis ñaar ñoo xamante ne bii bi ñuy takkante dañoo bëggante ba àdduna xam ne ñaar ñi dañoo bëggante mhm. sëy bi daw 6 mois rek rek rek kenn bëggatula xool sa morom mhm. lu cay problème parce que sëy yee naturel tul ah. sëy boo xam ne buñ ko xasee takk am na ñoo xam ne ni seen xol bi seddee ci sëy bi noonu la seen xol tàngee pour mu tas d'accord am na ñoo xam ne ndoyu baan sëyu 10 ans ba léegi tàyyi wuñ ñi ngi def lu ne pour mu tas dëgg la mais daf ci am sëy yoo xam nag yàllaa ko téyel boppam de sëy boo gis am na ñu mu neexul mais looloo xew Sénégal léegi janvier ngay yëgle mariage bi février mars avril ñu dajeeg yow ana sëñ bi nga nit may na ma baax kon bare na ci Afrique sëy yoo xam ne dañu tas te dafa am ñu ci jug daal dugal ci seen loxo parce que mais looloo fi bari ndoyu baan tey boo introsé woon mhm. Sénégal jigéen ñu bari ñu seen sëy tas mhm. lu ko tas dañ la naan sëy bi de damaa jékki-jékki rek waa ji mel ni bëggatumaa xool. dëgg na macha allah. bu la jegee mel ni mais dëddale yi ñoo ñoo yàq àdduna bi ndoy baan mm-hmm, mm-hmm. dem ci sëriñ amoo fa benn yitte bu dul yàqal ma diggante diw diw. dëgg kooku xalaat na digganteem ak yàlla. Mm. mais ndoy réew moo xam ni kenn bëggul ko avancé ku yàlla dénk teraanga mi ngi bineegar seen xol bi di ko dagg. na yàqu na jeex na perte pour lan mu am lii mu am. lan moo tax mu agsi fii. pourquoi nit ñi sopp ko nii lu waral lii. tegal oto bii muy dawal lu ko waral. tegal loxo ci ci pourquoi yaa ngi yóbbu sunu xel ci. ci Youssou Ndour nee naa ñun dañu am euh, PDG mais dañu am itam à côté Youssou Ndour mi nga xam ne dafa wëy fashion. nee na bu boobaa nga dugg sa oto bu fashion def sa yëfi fashion ànd ak ñu fashion. salaamaaleykum mbokku téléspectateur bi. ah Oustaz. maaleykum maaleykum salaam wa rahmatullah. ajaratu bisimilah. maa leen di ziyaar bu baax a baax. noo ngi lay delloo ziyaara bu baax soxna si. di leen nuyu di leen tatagal. alhamdulilah ñu ngi la koy delloo. di nuyu Oustaz Fall. ñu ngi lay ziyaara bu baax a baax soxna si. di ko ñaanal di leen ñaanal yal na leen yàlla defal jàmm. amiin yal na ko yàlla boole ñun ñëpp. Euh, émission bi neex na macha allah. jërëjëf jërëjëf. waaw di bëgg participer rek di wax ne. Sénégal dafa am lu ñu fàtte. surtout mhm. ñun mhm. jigéen ñi. damay fekk ci li oustaz Fall wax. Mhm. mooy dafa am lu ñu bàyyi. te defe naa ne loolu buñ ko bàyyee rek mooy ñu ngi ci erreur. est muy dañu war a jàngiwaat suñu diine. dëgg la. soxna Eva. naam. diine rek moo lay jàngal ni ngay sëyee. ak ay dëgg. te defe naa ku ko jàng. boo duggee ci sëy rek di nga xam ni nga fay toogee. dëgg la. bu la téeméeri nit fekk si woon di nga xam ni nga fay toogee. wallaahi. ndax diine rek mooy dëgg. loolu dëgg la. te fi ñu toll nii dama naan suñu moromu jigéen ñi. Mm-hmm. dafa am beneen royukaay bu ñu jël bu dul diine nañu delluwaat ci diine waaye ngir yàlla. macha allah. ndax ku ci nekk rek. Mm-hmm. ëllëg. Mm-hmm. di layoo ak sa borom. ak leer. nañu jàngiwaat suñu diine. bu baax. nañu jàngiwaat suñu diine. bu baax bu baax. diine moo lay jàngal li ngay toggee ci sëy mais moo lay jàngal tamit li ngay jëflante ak nit ñi ci société bi. ak ay dëgg. diine moo lay yaral sa njaboot. Mhm. diine moo lay wax lépp lépp loo soxla rek diine moo la koy wax. ndeysaan. du tubaab yi. Mhm. déedéet nañu xoolaat suñu toogaay ci société bi. incha allah. ndax gis nga am na loo xamante ne bu nekkee ci yow. waaw. koo jëflanteel mu naw la. ak kay dëgg. wallaahi koo jëflanteel rek mu naw la. dëgg la. waaw ñu jàngiwaat suñu diine wax salaamaaleykum wa rahmatullah. kontaan nañu lool ci woote bi macha allah soxna su baax. sunu xel dafay dem ci daara daara Seydi Jamil ca fas mhm. ñu ngi nuyu ñu ngi nuyu sunu xarit oustaz Moustapha Ndiaye. di nuyu tam Serigne Cheikh Ndiaye moom ma nga Canada daf noo bàyyi waaye ñu ngi koy ñaanal yàlla moom ak soxna si yàlla dolli leen jàmm bu baax a baax a baax a baax euh, Ndoye Bane sa dikk na mhm. mu mel ni tey bu ma bëggoon rek déjà bu ma paree léegi statut mën na maa dagg léegi am yu ma posté léegi ah, waaw waaw nee na dañ lay wutal mu mel ni dañ lay dañuy indi wujj man du ma wax wutal wujju parce que ku nekk jigéen bu nekk yàlla dafa def kenn niroo ci ak kenn ku ci nekk tu es unique dans ton genre mhm. yàlla moo moo moo moo noonu tey jii ndoy baan ka ñu indi am na ay foor nga am ay foor keneen ka ñëw ak ka ñëw ñu ñëpp ku ci nekk am na lu la yàlla may boo concentré woo ci yi la yàlla may di nga joxe le meilleur de toi-même mhm. waaye boo ko defutee comme ni ko oustaz waxee tey ñu ne la demal seeti sëriñ diw gannaaw suba ñu ne la demal fële ba ci yow nga dem ba réere sa bopp macha allah. Mhm. bu boobaa gëmuñu ne ne di nga mën a am lu baax pour yow macha allah oustaz nit suy def mhm. na suur njabootam. dëgg na sóor d'abord aw as askanam. ak ay askan ba noppi. sóor sa papa ak sa yaay. dëgg soor ni da ngaa ami doom. dëgg sóor ni da ngaa am borom kër. dëgg sóor ni loo fi def tey jii soo faatoo sax nit ñi dañ koy waxtaan. dëgg la ah diw de moo fi defoon nangam. mais moo fi defoon nangam. xam nga yonent bi def ne uzkuru maxaasina mawtaakum mhm. su nit génnee àdduna yi mu rafetle na ngeen ko tudd. Mhm. mais senegal gi nit ñi buñ la biralul it nañ la yelo waaw nga ni buñ la biralul. dañ la yellu. waaw man bu ñu waxul ci kaw yi dox ci suuf wax ci kaw ak yu ñu wax ci suuf. nit génn àdduna ñuy yëkkati yu rafet yi ca kaw. waaw fekk yu suuf yaa ngi yu yeneen yaa ngi jàll ci suuf de. ñëw nit génn àdduna nga toog ci dëj bi. Mm. xalaat yi mu nekkee woon te yow nga xam ko. sa xel nekk waaw yonent bi ne xam ngeen yi mu nekkee woon de waaye nag nëbbu leen ko bu leen ko tudd. uskuru mahasina mawtaakum yi mu rafet li tudd leen ko. ndoy baan ñun problème bi yëpp mooy dañ fee bàyyi alxuraan bëgg tubaab yi ci façon sëyin doxut doxul looloo ñu tardeel te nag oustaz nan ko wax itam oustaz tubaab am na lu baax bari ah oustaz. Eva tubaab am na lu baax de. Eva ñun dañu sax mujj réer xamuñu fu nu féete lay mais tubaab am na lu baax. naa. bindoon naa tem ci koor gi paase. waaw bi may conférence Espagne. waaw may wax tubaab yi jikko yi nu am ñoom. te ñun ñu war koo copier. jërëjëf Fall. jikko yi nga xam ne yonent bi moo ñu ko bàyyil ñun ñu ne ko fi ñukk. wallaay tubaab yi xamul yonent bi ñoom dem jëli ko. uy lii muy mhm. bokk na ca maandu. Mhm. <laughs> digal ma ree te yàlla ñu ko digal de. maandu inna allaha adli. yàlla moo ñu digal pour ñu maandu. boobu rek doyoon na. <laughs> ah boobu rek doy ñun ñàkk maanoo ñu sonal. nga ni boobu rek doyoon xanaa xamoon soo maandoo da ngay gudd. mbaadu damay tàmbali léegi bu oustaz di conférence nga toog ca wet wa. Ah? nga toog ca wetam. kan moom oustaz fu mu noppaloo mën na maa mën na maa jël rek àdduna la. kese sooy maandu di gudd fan. xam nga lu yonent bi wax ndoy ba feebar sallallahu alayhi wa sallam min xusni islaamil mar'i tarkuhu ma la yaani dëggal loolu yonent bi nee na bokk na ci liy rafetal sa lislaam ba bu ëllëgee boo dajeeg yàlla mu bëgg ci yow. Ah. mooy fexe bu lu sa yoon nekkul nga neutre ci. ndeysaan nit ku maanu dem mm-hmm. ak bat. ndoy baan. Mm. ñun jikko yi ñu waroon a jël. li may wax ni nañu delluwaat ci alquran. Mm. alxuraan dañoo jàngal ni ñuy sëyee. Mm. alxuraan jàngal ñu boo amee sa soxna mu tooñ la nooy réagir étape par étape. Mm-hmm. fa saalihaatu xaanitaatun xaafizaatun lil xaybi bi ma xafizallah wallaati taqaafunna nusuuzahunna faizuhunna yàlla nee na boo takkee soxna waaw mu xëy xëy tooñ la ta tooñ bi nekk première tooñ mm. su boobaa faizuhunna da nga koy waar delloosi ko da koy woo ba mu ñëw nga waar ko ci yàlla waar jigéen ci yàlla nag mu dellu si yaa ngi koy mën a amee ci takk borom diine ak ki déggul diine boo koy waar ay Beyoncé lay déglu. Beyoncé. Beyoncé men ca Amérique. lay roof ci am ci écouteurs yi. Ah. di tacc taccee si moom du la déglu sax. Ah. waaw kon yooyu yëpp day am. waaw tacc taccee si ngomam. Ah. di wax ak moom du la xool. may naa la boobu. yàlla ni fa ay hunna da nga koy waar. waaw waar nag ki am diini tuuti nga ko mën a def mu dégg la. mu tiit ndeysaan wallaay wallaay wallaay boo ko nee sëy bi yàllaa ñu boole. ndeysaan dama bàyyi ñëpp takk la. wallaay dëgg la te yow yaay sama aawoo. ak kay bu ma sañoon yonent bi comme daf ni ëllëg soxna yi nga amoon fii même bu ngeen góorgóorloo ba dugg àjjana ñooñu ñooy doonaat sa soxna. ndeysaan bu ma sañoon maag yow ay waat ba biir aljanna. wallaay ndeysaan nga wax ko sa soxna ndoy baan. dëgg la dala mais bu dee borom day wàcc. ak dëgg billaay. yàlla ni kon première heure bu ko defee fa fa'izuhunna da nga koy waar bu fekkee changé wul defaat na ko répété ko. Mm. su boobaa wax juruhun na. da koy gàddaay ci tëdduwaay bi. gedd ko mooy bu lalee ba jekkal nga ne ko ci suuf laa am envie tëdd tey. su neexut a gedd nag a gedd am na ñu léegi mi ah yi dëgg may dindi caméra bi. mais am na ñoo xam ñu leen gedd. ku fii nag laa non oustaz tontu la. ah fii nag ci tontu. Moussa du jeeg yëpp lañ eh, mën a. non waa ji wax dëgg la. ah mais waay ci nag. am na ñu <laughs> neex a gedd ay ati ati ati at mais am na ñoo xam ne neexuñoo gedd nag Moussa. subaa na ma neex a gedd. mais xam nga ah. gedd mais mais gàddaay gi sax alquran ci tëdduwaay bi la wax de. waaw ah. wax juruhunna fil madaaji'i. waaw gàddaay ko ci tëdduwaay bi. waaw bu lalee ci kaw nga tëdd ci suuf. Ah. bu féetalee nii boppam nga jox ko say tànk yow féetalee. Ah. bu sonnee dana la fekk si pour ngeen jublu. Ah, mais xam nga loolu bu dee. ca Italie ca jamonoy seddaay moom ñu bari duñ ko mën. waaw waaw mais da mooy mooy li ma wax rek. da fekk mu ne. yàlla ni bu fekkee répété waat na même problème. waaw ah. su boobaa wadribuhunna. Mhm. na nga ko dóor. te noo koy dóoree yonent bi leeral na ko bi darbin xayru mubarrahin fooy dóor dóor boo xam ne doo ci gaañ ndaw si fan fii nag moom Sénégal la gaañak ñàkk gaañ ci yam fexeel ba daal booy dóor moom bu fa police jege ndax bu fa police jege moom damay ragal bu xëyee mu indil la añ yàlla ni su feefee jaar ngeen ci état bi yëpp te ndaw si soppeekuwul su boobaa fabaasu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha wol ay mbokkam woo say mbokk ñu toog ci salle bi réunion yàlla ni bu fekkee yii yëpp jaar ngeen fi te taxul ndaw si soppeeku su boobaa waay waay in yurida islaahan yuwaffiqillaahu baynahuma problème bi mënta arrangé wu yàlla ni su boobaa jéggal ko nag mais separation bi na rafet. bala balaa fitnay dikk. libéré ko mu dem nga nga nga féex. Mm. wa in yatafarraqa yughnillahu kullan min saatihi yàlla nee na su ngeen séparé woo. Mm. Mm-hmm. bu kenn jàpp ni yaa yor sa wërsëgu moroom. Mm-hmm. kuy dem wërsëgam lay yóbbaale. mais séparation bi na rafet. bu kenn fase ba pare wëlbatiku di yàq sa deru jabar. moo fi am na bu kenn bàyyi sa jëkkër wëlbatiku di ko yàq. dem ca sëriñ parce que ndoy baan yi ngay tudd ci ndaw si yépp naan nii la mel. Mm. gisoon nga ko ci moom te teewul da ngaa bëgg dëgg lépp ànd ak moom. Mm. lépp lu feeñ ci sëy bi rek. nuyoo woon na ca ngoro ga ngeen. mais yow ginnaaw bitim réew nga nekk. violence ba ca bitim réew. jëkkër ak jabar yi rayante foofu di gaañante. lu xew. mais parce que Ndoye Bane violence bi gars yi di wax. pour lan nga dem bitim réew. boo yemee sa dëkk sax. non moom fa la nekk. boo yemee sa dëkk sax ñoom. mais xam nga Ndoye Bane problème yi am Sénégal daanaka boo xoolee moo am Europe rek. kon dañ ko transféré. dañ ko envoyé par Bluetooth mu dem. c'est mondial. yëpp Bluetooth tam def la lool même problème. problème yi fi ñu am fële. parce que da ngay gis benn maire. parce que Ndoye Bane fële. am na fa ñu fa am jabar am fii jabar waaw te jabar jee yëgul bi defi. non yëg na ko sax mais kane fële souvent du bëgg ngay jox jokkoo ki ne fi te xam na góor ñoo xam ne seen i jabar ca Europe ñu leen ñuy wax ak seen i ñaareel ci biir kër gi. oustaz baal ma teg booy ak moom génnal ci bit oustaz baal ma rek teg baaraam euh, Mia aman kenn newu ci ligne bi. mais dafa am réeroo buy faral di dee am ci diggante yi relation boo xam ne ñetti nit a ko lal ñetti nit a ci bokk muy yow ak sa ñaari soxna. naka lañu bëggee nit ki nangu ka nga xam ne moo fi ne te boobu boroom këram mi ngi dëkk ci noppam naan ko diw du sama jabar oustaz góor yi dañuy commettre erreur boobu. ah mais nee naa la diw du sama jabar. nga dégg ne diw sa jëkkër da ko takk mu gëmm ci ne la takkuma diw. nga dégg ne dafa am ak moom doom léeg mu ne la jurul doom bi. Mhm. yow mi nga xam ne yaay jigéen da ngay ne yaa ngi say droit kon boog loo mën a xeex ngir loolu dañ da nga xeex. parce que wax ngeen ko sànq ci seen wax ne am na góor yoo xam ne ñoo tas seen kër jigéen a nge comportement boo xam ne ci digganteem ak jëkkëram mhm. booba dafa am lu mu ñaaroo waxante ko jëkkëram te jëkkëram bu paree wéyee neneen mooy indi problème mais nag Eva jigéen jigéen ñi attekat bi bu ñëwee du xam la kalal ca fond ba day xool rek manière superficielle jigéen ju baax doo nangu ñu lay takk takk suuf ki lay ah. takk takk suuf bëgg la mi yaa loo wax ndoy baan sëy dañ koy siiwal sëy dañ koy siiwal àdduna bi yëpp yëg ne tey jii ndoy lañ doon may soxna. mooy fulla de mooy fulla naa la takk mu yem sama digganteeg yow loo nar. boo see ànd ak madame daal di may catal daal di romb. waaw sëy bi na siiw ba adduna xam ni sëy bi siiw na. Ah, waaw waaw Europe ñaari problème a fa am. ban ña fa am soxna am fii soxna. Hmm. am na ca ñoo xam ni seeni soxna ya fa nekk. Hmm. bëgguñu ñu wax ak seeni soxna yi ne fii. beneen problème bi mooy am na ñu fa nekk ñoo xam ni seeni jabar xam nañ ni ñii. seen loxo jotul seen gannaaw ñoo leen di dimbali ci biir kër gi. Mhm. te heure bu ñu ñëwee vacances takk jabar. Mhm. ndoy baan jabar ku ma ku ko mënta yor waroo koo takk. te gars yi mënuñu ko. yow benn jabar la sa salaire yam baan cinquante mille ngay fayee ko wala soixante quinze mille bëgg a fay facture sa kër jot ngaa am ay bant yaa leen di fayal école yaay joxe dépense mhm. ndoy baan ku la ni mën ngaa yor ñaari jabar da nax. kay waay. mais góor ñu bari yi leen ciy dugal mooy da ngay gis deuxième femme boo xam day ñëw ni la man laajuma la dara. wekk ma buum man buum bi rek laa soxla fekk buum gu nëb la yor. wékk ma ah, buum bi mu ànd jaamu yàlla bare na nag li muy dal ñoom oustaz Dieye de bare na li muy eh, dal ñoom oustaz Mara Fall bare na ci oustaz yi nag de <laughs> waa boor bi ma buum <laughs> oustaz yi ci télé yee mais ndoy baan ndoy baax mi ndoy baan conférence du yi la ñuy dem mais buum nga ni nga ni nga conférence du diriyànke yi rek la ñuy dem ndoy baan ñu la mais ndoy baan buum yi ñu bëgg a wékk yëpp buñ ñu ko wékkee ñu laxas ñu buum <laughs> ah tayit soose day nee na nag yenn yi da ngay bañ. buum yi ñu bëgg a wékk yëpp. waaw bu ñu la ko wékkee nga nangu ko. waaw ñu laxas la buum ñu laxas la buum leneen li nga ba. xam nga médecin bu lay bindal comprimé day xam dose bi nga àttan mu jox la ko. waaw yàlla xam na ni dose góor. bu fekkee mën na ko quatre femmes la. Mm-hmm. mu jox ko ko. waaw kañ jërëjëf yaa ngi ci danga dugg ci dose góor ma am laajte bu ma bëgg a laajte en toute aisance mhm. ndax am na ku ko kii daal yàlla xam naa ñaanam nangu na nee na borom këram ñetti jabar la am te moom xam na ne borom këram këram mënalu ko moom bay mënal ñeneen ñi te bëggul détailler lépp ah, nee na ñetti jabar la am xam nga Eva dama laa Eva dama laa résumer lu wax ji ci commencement bi nee la Sénégal rek ngay gis ku ñu coupé courant mu naan kaay leen sangu si sama kër. ah kon boog tontu baa <laughs> ci dara waaw. yow Ndoye Bane loo xam ne yow wóor na la ni mënoo ah. te genn wàllu Ndoye Bane ñi fiy dajale ay jabar billaahi mënuñu ko ah. nga ni. genn wàll ñu fiy dajale ay jabar ci réew mi. Ah. mënuñu ko. luñ mënul. ci zaahir façon yëpp da ciy am. léeg-léeg Ndoye Bane nga nekk ak sa soxna. sa mm. soxna xam ni yow mii feebar dal na la. waaw mu toog di muñ ndax njaboot gi ngeen am. dëgg la. kii muñ loolu nga xëy xëy bëgg a takkaat beneen jabar teg ci kawam tam wóor ko ni yow mii da ngaa feebar neexut. violenté nga ko moom da lay da lay yow sax jarul xuloo na la ah, bàyyi rek ba pare ba pare léeg-léeg nga gis léeg-léeg nga gis góor gu takk soxna. waaw àggale. mënta am doom. waaw mais mère en général ku góor ki yoonam newu ci de. jigéen ji sëy te mënta am doom la ñuy teg bët. moom lañ koy jii da ngaa ay gaaf. waaw bu dee yaw ak yaw du ma dégg maam. mais kaddu yu ñaaw yi génn ci biir kër yi léegi ndoy baan da nga naan ban réew la nu nekk. sa waay seet feebar ba ca doomam. waay waay bu ñu jooyloo da ngaa war a am doom. wallaay ndeysaan. sama doom ji ba mu duggee ci yow ba tey daa tardé. mais ndoy baan fii ku fiy takk jabar bu yebu nga ñaan yàlla après mariage bi jàmm di xew de. Mm-hmm. gis nga nga takk jabar dimanche lundi nga génn est-ce mbëkk la. Mm. gis nga am na problème. Mm-hmm. ki nga takk daa ay gaaf ba nga ko takkee ba léegi lañ la dàq ci société bi ci nga dellu gannaaw moom daal ba mu takkee jabaram ji ba léegi laay ci la ci la picc mi commencé génn njëkke yi sœur yi commencé di ci wax tamit yi dugg ci njëkke yi dugg ci ndeysaan parce que léegi sëy bi sëyu Sénégal a gën a métti ci sëy yi ndoy baa sëy boo xam ne njëkk yaa ngi ci biir mm. goro yaa ngi ci biir mm. rakki jëkkër yaa ngi ci biir mm. ñoom ñëpp ko mais di sëy ak sa jëkkër 10 heures ci guddi nga war a tëdd sa rakki jëkkër toog ci biir néeg bi naan damay seetaan Real Real Barcelone waaw <laughs> oustaz te sañoo leen a wax damay tëdd parce que boo leen génnee néeg bi <laughs> seen yaay ñëw waaw euh. sama doom ji ba muy tabax néeg bi de xamul la <laughs> da ngaa bàyyi ba mu neex tey ngay doog a ñëw ah. ne ci biir sëy bi ñooy def. Ah. ñooy dindi. Ah. mayatuñu ñaar ñi seq couple bi ñu dund seen dund. mami Linguère mami Linguère wuyul fi kenn mayetu leen ko waaw. ñëppay ñëw dugg ci sëy bi. Eh. looy sol ñu ngi koy calculer. waaw téyër bi de xanaa vingt mille la ko war a fay. waaw moom de lu mu liggéey jox jabar ji. allahu akbar Sénégal ay réew moo xam ne gis nga boo fi nekkee te xooloo li la arrangé nga di ko def. amoo fulla amuloo fayda doo téye kenn jëkkër du téye da nga dugg deux mille dix huit ba dugg deux mille dix neuf fi nga tolloon ngay toll. jëkkër du téye li nga war a def bu dee neex na yàlla neex na yonent bi bu ci wala ku koy gisee neneen. très bien oustaz defal li yàlla sant rek ànd ak yàlla. macha allah te dox sa dox laa lay wax nga taxaw fa ba altine ma woowaat la nga dikk fi ndax kii dama koy yóbbu mission dafay daal di dem ca piir sañu Sañoxoor te fay xew yëpp xam naa altine du mun dikk ak ñun. ñu ngi de tout cœur ak yow. moom moom ma nga dana dem Pire mais incha allahu taala altine dana dana dikk. Mhm. bu ko defee mu wàccal ñu la foofu yow itam ndax dana fekk nga yeewi say gan man nag da bu yàggee de dama ko naan Serigne Doy Baan Serigne Doy Baan doo ko dégg ci man tàggatoo <laughs> tàggatoo. Eh téléspectateur ma tàggatool ba noppi. jaajëf ñu ngi tàggu ñëpp di di di di ziar di leen di remercier nag sooy. fa laa doon dem sax moom na te li ngay Sénégal rek ngay wax de li ngay wax lépp mooy Sénégal. Mhm. waaw xam nga tey jii man damay faral di wax naan gars yi su doon butéelu ndox la man damaa naan damaa naan butéel ba mu jeex sooy mi it naan na butéel bi <laughs> na ñoo xam suñu waxee rek nga xam ne bi xam-xam li nga xam ne moo di dëkk di ziar ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi seetaan rek ah. di leen jox dox daje liggéey incha allah. Mm. ba suba ak jàmm incha allah. macha allah oustaz kàddu euh, soxna Eva maa ngi lay sant bu baax. di la gërëm di la ñaanal yàlla bu baax. amiin moom itam mu laa dëgëral. yàlla sàmmal la boppam. ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. amiin yaa rabbi euh, nuyu bu baax Alaaji Ndoye Baan mm-hmm. sama soppe sama xarit. Mm-hmm. incha allah di jox ñëpp rendez-vous nag pire. Ah, ca gàmm ga incha allahu taala mm-hmm. ñaan yàlla réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm nuyu suñuy wayjur tabarakallahu nuyu réew mi yëpp mm-hmm. ñaanal télévision Futurs Médias yàlla na ko yàlla gën a barkeel asalaamaaleykum wa rahmatullah macha allah soxna Mia Ndour yow itam ñu ngi lay wax merci góor baax na jigéen baax na ndax yow itam réalisation bi yaa nekk ca gannaaw ànd ak sa équipe ñoom Jili ñoom Petit ñoom Babacar ak ñoom am yàlla na yàlla defal leen jàmm ànd gi yàgg may remercier nag Aïcha Traoré pour belle euh, tunique ou la belle chemise ma nga nekk ci 77 103 59 96 yaayu Cheikh Tidiane maa ngi koy remercier bu baax a baax wala bu ngeen duggee kër Eva rek di ngeen fa fekk chemise bu rafet bi macha allah bu ko defee ñu jaay leen ci di remercier itam ndey Ami Coiffure moom ma nga nekk ci 77 648 56 gërëm itam bépp téléspectateur boo xam ne daal tey toogoon na jàkkaarloog ñun ci émission wareef macha allah lu ci jub rek ci sunu borom la. leneen lu ci safaanoon ngeen xam ne macha allah dinañu gën a yeesal yëf yi mu gën a baax bu ko defee sant nañ leen gërëm leen di ñaanal yàlla suñu sunu papa euh, Sidi Lamine ñas yàlla na ko yàlla yóbbu aljana te teg loxo njaboot gi bu baax a baax a baax groupe Walfadjri daal ñu ngi leen di présenté suñu njaal bu baax a baax a baax di ko présenté ay soppeem ak mbokk am ak ay xaritam euh, wasalaam ba suba incha allah jërë ngeen jëf